إلى سرسارة إلى سرسارة إلى سرسارة قد خسدوا سيارتي فارق دارني أو زارا Serigne Kosso Mbacké mu ngi feeñ ci atum 1935 sunu boroom tànnal ko ay waajur ndax Cheikh Mamad Hawa Balla muy way juramu góor waaye soxna astuloo mooy way juram wu jigéen way juram jigéen soxna astuloo bokk ci néeg boo xamante ni bii taamu nañu leen ndax sëriñ ma jaxate xëri jàngloo mi nga xamante ni bii moo nekkoon Karaciil lu jiitu mu fay jóge di dem ndam ngot mooy way juru soxna assulo loolu sax moo tax Cheikh Mamad Haw Balla féetale sëriñ Basiru assulo barab boobe maamam nekkoon di Karaacil moom sëriñ ma jaxate xëri jang bari waa na ci ëtti Serigne Touba yi ëtt boo xamante ni boo demee di nga fa fekk njabootam gu jigéen tàmbalee ko ci soxna astuloo boo ñëwee di ko fekk ci ëttub sëñ mu raw balla mbokkam soxna soodaloo boo demee ci ëttub sëriñ mbay jaxate danga ko fa fekk mbokkam maam astuloo boo demee ci ëttub Cheikh Abdul Ahad Mbakke da nga ko fa fekk kon njabootam gu jigéen yépp ñi ci ëpp boo demee ci ëtti Serigne Tou Serigne di nga leen ci fekk ba boo demee ci ëttub Serigne Mor Penda Touré itam da nga fa fekk doomi sëriñ ma jaxate xëri kon sunu borom daf koo tànnal ay wayjur maamam jooju di ma ma jaxate xëri itam bi nga xamante ni en 1898 le gouverneur de l'AOF bi ñu doon wooyee Chaudié le 1er janvier 1898 tere woon na ni kenn dootul natt asaka senegal Serigne ma Khary Dieng dafa continuer woon moom di natt asaka ak njabootam ca ndaam ngottu ba soo demee ci conseil général bi amoon ci ñeenti fan ci weeru novembre 1930 di nga fa fekk mbéjoo bu doxoon diggante njabootu Masele wala Ibrahima Ndiaye mi doon buur Njàmbur ak euh, Samba Xëri Cissé ndax booba folli nañu njabootu Ibrahima Ndiaye ci province bu Njàmbur boobu boobu Louga fal Samba Xëri Cissé waaye ci seenu xoloo dem nañu ba ci euh, session bi amoon ci le 4 novembre 1930 ba ñuy nettali seenu xoloo dikk na ca ci archives yi mi ngi fi archive nationale de France laa ko jëlee que waa kër ma jaxati xëri jang ndaam ngott dañu doon natt asaka ba loolu chef de province boobu di Samba Xëri Cissé dem na fa ba xeex fa ak sëñ Modou Lo bi nga xamante ni tey mooy way juru soxna Mariama Lo mii way juru Serigne Kara mi toog toog waayu way juram Serigne Koso Astulo ndax sëñ Kara sëñ Koso baaye ma waaye nijaayam ma ni nga xamante ni Cheikh Mamadou Awa Balla borom Daaru Muuti way juram la waaye nijaayam la waaye Serigne Kara itam Serigne Koso Astulo nijaayam la ni mu doone baayam ndax soxna astuloo ak sëñ moduloo ñoo bokk sëriñ ma jaxati xërijeng kon sëñ moduloo moomu moo xeex ak chef de province boobu ba mu mattoon ko loolu tubaab yi ñoo ko indi def naan sax am na woy yoo xamante ni tey ku laaj waa ndaam ngott loolu dana ca feeñ kon diine dafa yàgg lool ci ñoom jëmm ji di sëriñ ko Astou Lo nag su fekkonte ni way jur dana damoo doom kon ñu wax li sëñ Modaw Balla dana damoo sëriñ ko Astou Lo ndax fierté la woon ci moom ba mu feeñee mu tuddee ko waajuram borom darul mooti sëriñ koso sunu borom def ko mu doonoon ku doon dimbali doomu aadama yi doonoon itam ku fonkoon sëriñ Modou Awa Balla ba yemaliwu ko woon ak dara moom daf daan wax ni waxuma sëriñ Modou Awa Balla waaye sëriñ mu Moustapha Absatou Jaxate ak njabootu sëñ Modou Awa Balla gi tey bu fekkoon asamaan si dafa màbb jëm si ci ñoom damay jóg kar ko ci man lay dal waaye du egg si ci ñoom bi mu nekkee ak juróom sëñ Modou Awa Balla itam tegoon na ko foo xamante ni bii euh, soo demee ci marché yëpp sëñ Modou Awa Balla bi nga xamante ni bii bi mu làqoo en 1982 maa ngi ko defee woon Florence Firenze ci itali maa ngi wax ci biir marché ba ni cey ko so astuloo ko ñàkk waayam day xaritam dib sëriñam di baayam baayam da ko gërëm ba xëy yebal ko mu toog fa sarsaara lu jot mu def ko ina lazina kon ila sarsaara yéen gaa yi ànd leen nu dem sarsaara daana rëbbal baayam ci at mu nekk ca digg manding ma du naan du lekk yët na ko rab wu ne fa pencum daaru moo njëkk a indi kooba moom fa daaru su weeru koor masaana ñëw fa daaru mu yët ko ay ndogu yu jaaxal daaru bisub korite la ko woo fa daaru mu ñëw mu déy ko ñëpp a teew fa daaru ndekete booba yëf yu bon ya yàlla di tere moo di sàngaraak mooy yàlla moom la ko ni na daal di jóg fi daaru mu wax ko baayam Abdou kay maxtaaru Cheikh Abdou daal di koy tasaare booba xibaar ba tas ba ñëpp jot ca booba ba tey xam naa ko fa doon fajoo beer ci daarul muti boo wutuwul faatu nda doo fa gis beer sëñ koso dafa doyoon Cheikh Mamadou Awa Balla euh, ndogoom yi damay bañ a guddal de kon danañu historique bi fi mu tàmbalee waaye defal na lu ne waajuram ba rëbb dem ci àll bi di yendoo ko fanaan ngir rëbbal Cheikh Mamadou Awa Balla ndax borom Daarul Muxti dafa digaloon sëñ Mamadou Awa Balla ngir mu dem rëbbali Serigne Touba rëbb moomee sëñ Amidou Diop mu ngi koy nettali nee na ba ñu rëbbee ba ñëw bi borom daaru yebalee sëñ Mamadou Awa Balla ñu yóbbu rëbb mu njaareem nee na keroog kër gu am cin rek am nga benn wala ñaari naat ca la ko sëriñ bi doon eh, jàngale ni ñuy rëbbee maanaam boo boo boo fetalee boo jamee na nga xam ni eh, ci kattanu kii kattanu yàlla tax nga jam maanaam bul bul damu daal bul jam aw rab di damu ak ya ca xew noonee sëñ Madaw Balla defaloon eh, ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba moom sëriñ ko astuloo defal na ko way juróom rab woowu ñuy wax kooba loolu ma wax ci way wi ca Jolof la ko fetale indil ko waajuram fii ci Daarul Muxti li ci des itam ngeer fàkk sëñ Modaw Balla moo ko sanc gannaaw bi nga xamante ni bii euh, sanc na daarul euh, euh, daarul rahman gi sëñ Fallu sa jeey nekk en 1945 mu jóge fa dem sañc ngeer fàkk ba mu fay dem muy fii tudd Sarsara tey ngeer fàkk la ko doon wooyee sëñ ma Modaw Balla sanc ko tudd ko wa tuddee ko wasilatu ruboox xam ngeen ni xàll bi jëmoon Louga foofu yi la jaaroon apprenti yi daan lang ci oto yi Baye Balla Gaye ñoom yi au ñuy wax altu wasilatu rubox ñoom lañ daan wax altu wasila altu ba mu siiw bi nga xamante ni bii soxna Moominatu bintul Xadim sëriñ bi yóbbu na ko fa nga xamante ni néeg yam fa def yamu nekkoon Cheikh Samb mii nekkoon ci barabu Cheikh Maodo Awa Balla moo takk néeg ya am na garabu soon gu fa nekkoon goog soxna moom yi def koo lakkoon ñu wër ko mu tuddee ko sarsaara wax ni ku wër garab gi am nga yoolu ñu fekki woon sëriñ bi sarsaara ba taxoon sëriñ bi di wax ni in alladina ila sarsaara xat xasado siyaaratul faraqo daarayni xaw saara kon soxna moom yi moo tuddee barab bële euh, sarsara ba mu ko tuddee sëñ Modou Awa Balla nekk fa ba jóge fa dem sañ ci euh, euh, dem sañ yabal ba mu sañcee yabal ci la rafaatale dëkk ba wala ca la yabal sëriñ ko sa asuloo ngir mu dem foofee doon wasilatu rubo te ñu tuddee ko léegi sarsaara soo demee ca marsiya ba maa ngay wax ni Euh, bi ci sanc yi nga xamante ni sëñ Modou bal la sanc na ko moom wasilatu rubu la moodu gorlu far soppi turwa gile góor a farlu tuddee ko sarsaara yebal fa doom ja muy ko so astuloo ki lee di waaja tabax na kër ga ba mu daj gasteen ba yal na ko maam ja fay ci barke baay ba kon desewu ko mu réer ndax sëñ Modou Awa Balla fu mu sancoon yabal na fa doom waaye defe naa ni sëriñ ko Astou Lo ni mu taxawoo Sarsara kenn ku nekk gis na ko kon li wolof yi di wax ni desewoo ko mu réer euh, la nga xamante ni wala fa nga xamante ni fa la ko waajuram yabaloon muy sarsaara moom sëriñ ko Astou Lo desewu ko mu réer moom nag li ma waxoon ni su fekkoon te ni waajur dana damoo doom ma ni sëñ ma daaw bal la daana damoo ko Kosso astulo ndax li mu nekk ak moom yëpp da ko jàppewu ko woon waajur ab sëriñ la ko jàppe woon lu neex sëñ moo daaw ball rek ca lañ daan xëy daan ca gont ba sëriñ bi toggloo ko ndogu lii nga xamante ni bii moo wéy tey ba sëñ karaam mi toog ab jataayam nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko yàgg ko def lool ak njabootu sëriñ ko soo assuloo moom sëriñ ko Astou Lo tey du ma wax ni ñu yor bulletin de salaire boo xamante ni yàlla ak moom a tax ndax ñi mu dugaloon fonction publique war nañu dem retraite fi nu toll ndax moom bi mu fi jógee ak léegi ñaar fukki at la ak benn waaye doomu sénégalais yi nga xamante ni am nañu bulletin de salaire te sëñ ko sa asuloo tax kenn xamul ñu mu toll personnalité bi ko yàlla joxoon nga xamante ni Senghor mi mu daan jamonoon teel mu doonoon le président de la république ñëw na fii en 73 sëñ ko nii sëñ moo daaw balla mooy sama wayjur Senghor mooy sama xarit xaritam googee nag ñoddiwul woon rek taf ci boppam su fekkoonte ni ses relations avec l'état sénégalais à travers le président de la république euh, Léopold Sédar Senghor da def ngir boppam kon nëga nii Sarsara dafay mel ni Paris waaye gouvernement bu mu fi nekkaloon ba ni fi Abdou Diouf wuutoo Senghor daf daan lijjanti ngir taalibe yi soo demee au port la mu fa dugal ci ay nit ñu doon fa liggéey kenn xamul nu mu toll soo demee soti ba ñi may déglu man na waa tudd ay tur waaye société yi dul jeex damay bañ ba ci RTS am na ñu fa am salaire ba retraité sëñ ko sax moo leen fa dugal kon moom ni nga xamante ni bii borom daarul moxti daawul dunde ab état mais daf daan dundal ab état état ñoo daan ñëw di wut si ci moom aw jiwu état ñoo daan ñëw di sàkku si ci moom PEP moo xamante ni na daf ko ni joxeel PEP mi ñu dundale ko les prisonniers politiques les prisonniers de guerre ndax amatuñu lu ñu lekk Serigne Kosso foofee la nekkoon Serigne Kosso ses relations ak Habib Thiam ancien premier ministre avec Abdou Diouf Senghor relation yooyu yëpp taalibe Serigne Touba yi taalibe borom Darou Mouti ñoom la daan lijjanti ndax. Euh, après indépendance ku mësul ku jàngul woon tubaab doo liggéey arabisant yi sax ku ci massa jàngi ba ñëw sa grade bay gën a foor mooy ab ustaas rek ngay mën a doon wala imam sëñ so moom moo taxaw ba ñu commencé di embauché ñoo xamante ni bii jànguñu tubaab ndax liggéey ba liggéeyub doole la ku jàng tubaab mën na ko ku jàngul mën na ko loolu moo taxoon euh, euh, euh, am na ñu bari ñuy jëfandikoo baatu bu jafee mais génération boobu ñoom ñoo waral di wax sëñ koso bu jafee li nga xamante ni bii tey am nañu ay salaire te moo leen ci moo leen ko taxam kenn xamul nu mu toll li ma waxoon ni dafa joxoon ab noppam sëñ Modaw Balla tabaski 1982 sëñ koso dafa ñëw tabaski si booba sëñ ma bal la mi ngi ci tawat ji ko yóbbu kere bi nga xamante ni sëñ Koso ñëw na julli ba tabaski yi jàll muy dellu ndakaaru ba muy tàggu waay juram sëñ ma daaw Balla daf ko ni woon Koso boo demee loo man ci dimbali doomu aadama nanga ko def fekkoon na ma ngay dimbali doomu aadama ye waaye nag léegi loolu dafa doon def ci coobare mooy léegi ndigal la loo xamante ni dafa bàyyi ko ci waay juróom si amama taxaw bal la mu ni ko koso boo demee loo man ci dimbali euh, jaami yàlla yi taalibe na nga ko def ni ko ndax man wii day di sa waajur du ma tëdd ba guddi ma xalaat lenn loo xamante ni waroon naa koo def ci sama dund te defuma ko lépp lu ma waroon def sama dund man man mu daw ball rek def naa ko kon soo demee Ndakaaru na ngay dimbali doomu aadama yi ba sëñ koso demee weeru tam xaridoo ba ñu ca duggee ci la sëriñ mu daw balla bàyyi li mu gënoon a bëgg muy gura ak warga kon ca ñaar fukki fan ya ak ñaar su ma juumul ci la fekki borom daarul moxti bayti sëñ koso def na fi fukki at ak juróom benn gannaaw waajuram waaye nag fukki at yooyu ak juróom-benn li mu fi dimbali ci ay doomu aadama wutal leen ay liggéey sukkandikoo ko ci euh, ndigalul way juróom la di sëñ mu daaw bal la kenn xamul nu mu toll. ilaa sarsara ilaa sarsara ilaa sarsara kan xasadu siyaarati faaraxu daareni aw saara